الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما mbokk jullit yi ñu ngi delluwaat di sant suñu boroom di seede ne yàlla rek mooy ci yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo yeyee woon jàngale jaamu yàlla ñu ngi leen di denc ñeen ragal yàlla sax ci loolu ngalawaay ba dee fekk leen ci te xam leen ne ku bëgg a texe àdduna ak alaxira benn yoon la bu amul bu ko ñaareel te mooy mu nangoo topp yàlla topp ndigal yeneen ci yàlla bu loolu passé mbokk julit xam leen ne amul lu gën a màgg ñeel ab jaam amul lu gën a kawe ñeel ab jaam jaam boobu yegg ci yàlla subhanahu wa taala bëgg ko yal nañu yàlla boole ci jaamam yi mu bëgg mbokk julit amul looy def ci kaw suuf lu gën a màgg sàkku ngërëmal yàlla waaye daw merum yàlla doomu aadama yi falilahi alhamd bari na ci ñoom ñu bëgg yàlla lool dañ koy fekk ca yahud ya di ko fekk ca nasaraan ya soo ñëwoon dëkk bu mel ne Sénégal yàlla boole nañu ci xeet yi gën a bëgg yàlla doonte ne mbokk julit ndax mbir mi dëgg-dëgg mooy yow nga bëgg yàlla kese déedéet mbokk julit la nga xam ne mooy xiiwal ga lay texe ga mooy nga bokk ca ñu yàlla bëgg bokk na loo xam ne nii luy metti la ñu bëri ci doomu aadama ngir sàkku mbëggeelug yàlla googu yóbbe na leen ci ñu xalaat ay mbir yu baree bari jàpp ne lii kat moom yàlla war na koo bëgg ñu sonn ca coono boo xam ne moo gën a kawe coono ba leen yàlla gàlloon ci faratayam dépensé ca seeni alal génn seeni kër paas dox lu sori ay coono yu bari ñu gàddu ko ca ca loolu lu bari la ñuy sonne na doon ca yahud ya la wala nasaraan ya wala ci biir lislaam da ngay fekk ne mbir la yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala jàngaliwu ko yeneen ti yàlla ba jàngalewu ko te yàlla la mu bëggoon jaam yi defal ko ko leeral na ko ba mu mat sëkk ci la mi ñu yeneen ci yàlla bi yeneen ci yàlla bi la mu bëgg la yàlla bëgg ca mu ñuy jegal yàlla leeral na ko ba mu mat sëkk waaw kon bu keneen créé beneen mbir ne lii kat day tax yàlla bëgg la fu ñu koy féetale foo ko mën a féetale yaa xam waaye yeneen ci bi alayhi salaam day loolu mi ngi ko doon tuddee bidaa mu ne kullu bidaatin dalaala bépp lu ñu sos ci diine ji jàpp ne lii day jël ngërëmal yàlla loolu de bidaa la te bépp bidaa yoonu sawara la lay jëmi waaye du la jegeel mukk yàlla jalla wa ala loolu moo tax jullit bu war a sonn lool gannaaw bokk yàlla mayee tawféex mu bëgg yàlla mu war a sonn lool xool naka nag laay def ba yàlla bëgg ma mbokk loolu buñ la ko doon tënkal dañ la koy tënkal ci aaya bi te yàlla tënk rek suñ borom yàlla nee na su dee da ngeen a bëgg yàlla na am topp leen ma yàlla bëgg leen képp koo xam ne topp na yeneen ci yàlla bi gëm la mu woote woon ñu gëm ko jëfe la mu woote woon ñu jëfe ko bàyyi la mu woote woon ñu ba ko laa shakk ne da nga am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala loolu nag xëy na laaj na léeg-léeg yenn détails loolu tax ba bokk na ci détail yooyu xam leen ne bokk na ci topp yonent yàlla ci jukko yi gën a kawe li ñuy tudde al ihsaan ihsaan mooy rafetal suñu borom yàlla mu ne rafetal leen ndax yàlla bëgg nañuy rafetal ñooñu rafetal mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañuy rafetal farata ya yàlla gàll ci ñoom lii di julli gii leen yàlla teg daan jàng ba xam naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon defee ñu defe ko noonu te bañ koy defit daañ fexe xeex ak seen xol ba yàlla dong nga tax ñu koy def loolu la ñuy wax ci aj makka ga loolu la ñuy wax ci zakat ba loolu la ñuy wax ci mboolem jaamu yàlla yi waaye mbokk julit nag foofu la yem déedéet yeneen ci bàyyi islam mu ne yàlla daa bind rafetal ci lu mu mën a doon bu ngeen daje woon ak seen noon ci toolu jihaad ba koy rey sax rafetal leen na ngeen koy reyee su ngeen tiimoon seen xar di nga xam ne di ngeen ko nar a fees daggate ko dugal ci kaddiri gi na am waaye teewul ba ngeen koy rendi rafetal leen na ngeen koy rendee mokk ndax gis ngeen islam noonu yàlla bi rafetal noo koy reyee xar beeg nag bi rafetal noo koy rendee ndax yàlla daa bëgg lépp lu jaam di def mu daal di koy rafetal loolu kon di julit war a bàyyi xel ci loolu ñu jéem a rafetal suñuy jaamu yàlla waaye jéem a rafetal ci na nga xamee ni nii suñu borom sant nañu ñu rafetal ci ñoom que jiitu ci ñoom mooy say way juru boo bëggee jege sa borom boo bëggee yàlla bëgg la xamal ne bokk na yoon yi ci gën a kawe mooy say way jur yooyu ngay rafetal jëm ci ñoom su dee ña ngay dund bu ñu fàttee it rafetal ga mooy lan mooy bu leen fàttee di leen ñaanal di leen jéggulul sa borom subhanahu wa taala loolu danay jural mbëggeelug yàlla waaye gannaaw loolu rafetalal jëm ci njaboot gi la yàlla dénk soxna laa ci doom la rafetalal jëm ci surga yi la yàlla dénk ci képp koo xam ne jiite nga ko waaye li nga xam ne mooy dëkkandoo yi ak mboolemi julit del rafetal jëm ci ñoom la yàlla may ci alal bokk ko ak ñoom lala yàlla may ci ay jéggal nga leen di jéggal seeni tooñ waaye tamit di yaatal la nga xamee ni ni mooy sa kanam ci ñoom loolee mbokk julit sunu yonente alayhi salaam topp na ko sax ba yóbbu ko ci bàyyuma yi ay rafetal leen jëm ci bàyyuma yi loolu da leen di jural ngërëmal yàlla mu yegg ca ba wax ñu ne benn waaye day mi ngi nii lay sababu yàlla bëgg ko ba tàbbal ko àjjana mooy rafetal bu mu jëme woon ci ab xaj ay yéen mbokk julit bokk na ñaareel boobu liy tax yàlla bëgg la mooy nga bokk ci muñkat yi suñu borom mu ne man dama bëgg muñkat yi muñ googu ñetti façon muñ la muñ gu jëkk gi mooy muñ ba def santaane yàlla yi mbokk julit yeewu fajar dugg ci ndox mu sedd mi muñ la laaj bàyyi koor lekk ak naan muñ la laaj ak makka yooyu yëpp muñ la laaj sa alal ji nga éventaire léppam xool la kay àqu yàlla ci zakka nga génn ko muñ la laaj loolu lépp muñ la laaj su ko defee loolu doomu aadama war a góorgóorlu li bàyyi ci xel fu mu mën a toll mu bokk ci la nga xamee ne it moom mooy muñ googee mooy def la la yàlla sant ca lam teg sa loxo muy sa njaboot ay yéen bokk jurit bokk na muñ yi gën a mag mooy muñ teete sa njaboot fexe ba li yàlla bëgg ñu koy def fexe ba li yàlla bañ ñu koy moytu suñu borom wax ñu ci ki nga xam ne mooy ismail alayhi salaam mu ne kaana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka wa kaana inda rabbihi mardiya islam ismail di mi ngi nii jaam la boo xam ne dama ko bëggoon lool ay yàlla ismail lu mu def ba nga bëgg ko suñu borom mu ne moom daa nekkoon di sax di déggal njabootam ñuy taxawu julli di génn zakat fu ñu mën a toll loolu it da ngay gis ne suñu borom moom la wax ne wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha njaboot gi taxawal di leen dénk ñuy julli ca nga muñ ci loolu ca mbokk julli mooy base bi waaye it tamit ngay xool fan la ñuy dugg fu ñuy génne naka la ñuy solo ana laka lu ñuy wax yii ay mbir la yoo xam ne da nga cee war a muñ ba dee fekki la ca waabud rabbaka hatta yaatiyaka al yaqin la nga xamee ni ni mooy njaboot gi di leen teese ci yoonu njub du la teggeeku feeg yaa ngi dund loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareelu façon muñ bi mbokk ja mbokki julit yi mooy nga muñ nag la nga xam ne mooy bakkaar yi mbokk li nga xam ne mooy njaaloo doomu aadama bi dañuy muñ ngir man caa mucc rawatina yéen xale yu góor yi lu bari ci suñ jamonoy bi mu wëlbati ko xale yu jigéen ñi ñooy bàyyi seeni kër yaay fekk si leen seeni néeg loolee nga la way muñal sa kemtaleel kattan ca xam ne yaa ngi nekk diggante ngërëmal yàlla ak ngërëmal sheytaan ana nga xool ñaata ngay tànn ci yooyu heure boo toppee sa bànneexu bakkan dem nga ci ngërëmal sheytaan jënd ko merum yàlla waaye heure boo muñee daal di koy wan gannaaw te yàlla tax da lay jural ngërëmal yàlla loolu it lay wax bépp xale bu jigéen bu ab saay saay woo ci ay caaxaan loolu lay wax ci ngalawaay yow mi yàlla nattoo woon carte muñal bàyyi ko ci yàlla tax yow mi yàlla nattoo woon naan sangara muñal ca ba ko ci yàlla tax amul lenn loo xam ne ay bakkaar la doomu aadama bi di ko bàyyi lu dul dafay ànd ak muñ suñu borom mu ne bégaleen ñooñu nga xam ne dañuy muñ donte na ñetteel bi muñ bi mbokk julit mooy nattu yi yàlla yi xëy teg sa kaw yàlla xëy xëy jël sa wayjur xëy xëy jël sa soxna jël sa doom alal ja nga bëggoon lool mu xëy xëy daal di yàqu ak ay fitna xëy xëy tege sa kaw bañ tëj li ci kaso wala nga amoon sëg wér xëy xëy yàlla nangu wéri digi nga tëdd ci nag hôpital ya mbokk yi yépp da ngay gis na ay nartalo yu bawoo ci yàlla muñ gan kay muñ yàlla xam ko ci sa xol da lay jural lu gën a mag lool natt boobu ca mooy da lay jural yàlla subhanahu wa taala daal di lay bëgg ay yéen mbokk ci nit xam leen ne bokk na ci la nga xamee ni nii moom mooy doomu aadama bi la koy mën a dimbali ca la nga xamee ni nii mooy mu jege borom bi subhanahu wa taala ñetteel ba mooy li ñuy tudde ak ragal yàlla ragal yàlla mooy lan mooy nga jàng xam ay ndigalam daa di xam ay tereem léegi nag daa di cay taxaw doxale sa diggante ak sawra kiiraay ku mel ni ibnu masud lam ko daan firee mu ne ragal yàlla mooy nga topp ko di ko bañ a moy di ko fàttali ko foo mën a toll di ko sant ji bañ koo weddi su ko defee waa ji nga xam ne dafa ragal yàlla kooku mooy kii ragal yàlla ci léppam heure bu ñëwee ci këram mi nga xool lan moo fi ngërëmal yàlla su demee ca marché ba luy ngërëmal yàlla su demee ca ñëm yilif luy ngërëmal yàlla ay mboolem dundam yépp da ngay gis ne mi ngi koy jéem a tënk di xool la ci neex yàlla mu def la ci naqari yàlla mu bàyyi mbokk loolu ci melokaan yenn jural sa nga sa ngërëmu boroom sa cafeelu boroom la mu bokk ci ñeenteel yi mbokk julit mooy doomu aadama bi doon ko maandu suñu boroom mu ne maandu leen xam leen ne yàlla dafa bëgg jaam yu maandu maandu googu loolu mooy lan mooy doomu aadama bi ngay nekk nitug dëgg di wax dëgg même bu dee ne da ngaa am koo jàppanteel heure booy wax doo wax lu dul dëgg doo ko sosal mukk waaye njaboot gi nga jiite it nga maandu seen diggante na doon ay soxna la na doon ay doom la nga maandu ci diggante jaamu yàlla yi amul kenn koo ci jeng di jël benn ak xam lii day mbokk julit xam leen ne bokk na loo xam ne da lay jural sa borom yàlla daal di lay bëgg juróomeel ba mbokk julit mooy li nga xamee ni nii mooy bari di tuub di dellu ci yàlla suñu borom yàlla mu ne daa bëgg jaam yiy tuub lu waral loolu mooy yàlla ñu natt ñun duñu ay malaaka commencé ci imam hasan mii taxaw seen kanam ak bépp jaamu yàlla bu ngeen xam amul kenn ku mucc ci bakkaar mbir mi kay mooy lan mooy gannaaw ba yàlla nattoo doomu aadama yi di def bakkaar donte na bakkaar yi wuute na ndax yéeg heure boo yégee ne kat yow tarxiis nga ba def nga lu neexul yàlla wala wax nga lu neexul yàlla wala bàyyi nga la yàlla santaane woon nga daa di gaaw tuub dellu ci yàlla ñooñu melawoo melokaan boobu day sunu borom yàlla subhanahu wa taala di leen bëgg ku nekk ci ñun war a góorgóorlu ci loolu noonu it la yàlla waxee dafa bëgg ñuy laab mbokk laab suñu borom yàlla da koo bëgg laab gi jiitu mooy nga laabal sa xol bi génn ci lépp luy shirk génn ci luy rëy génn ci luy iñaan waaye xoolal sa yére xool na dër luy laab foo mën a toll xoolal sa yaram bi heure boo demee ca wanag wa fexeel ba bul jël saw ma di ko tuur ci say yére na nga ko laabal fexeel di matal say njàpp di matal say cangaay jaam bi heure boo xamee ni mi ngi sax di moytu sobe mi ngi sax di laab ku mel noonu day bokk ca jaam yi nga xam ne yàlla da leen a bëgg am naa juróom-ñaareel bi mbokk julit mooy ñi nga xam ne dañuy wékku ci yàlla suñu borom yàlla mu ne daa bëgg jaamam yi nga xam ne dañuy wékku ci moom te mbokk doomu aadama boo gis am na loo xam ne lott na ca bokk na lañ jëkk a lott mooy ni ñuy def ba mucc ci sa wara nu ñuy def ba tabbi aljanna mbokk loolu ñu ci lott lañu ana ñuy fexe mooy ñun ñépp nañ wékku ci yàlla xasbuna allahu wa ni'mal wakil wékku ci yàlla di ko ñaan mu musal ñu di ko ñaan mu xiiwalal ñu waaye mboolem problème bu ñu mën a am ci kaw suuf nga la waaye moytul naan yàlla ak diw mi ma yaakaar abadan ak génn ko ci say wax del wax yàlla kese lii nga yaakaar ci xéewal yàlla kese nga yaakaar mu jox la ko lii nga tiddi yàlla kese nga yaakaar mu teggil la ko lii di sa réussite wala réussite njaboot ci yàlla kese nga ko yaakaar sunu borom yàlla mu ne képp koo xam ne daa doyloo yaakaar yàlla yàlla dana ko doy nga la way na ngeen bàyyi xel loolu lii mbokk julit ci li xutbe bi mën a tënk bokk na juróom-ñaari melokaan yoo xam ne dañ koy fekk ci tiiram yàlla bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala di wax ne ñi mel nii day bëgg naa leen bu doon tane da ngaa dellu woon ci sunna borom xam-xam yi gis nañ fa lu jege téeméeri ah wax ak juróom fukki wax yoo xam ne ay melokaan la yuy tegtale ne ki melawoo nii day nekk na ab jaam boo xam ne bu yàlla bëgg la loolu moo tax ba ku nekk ci ñun war a góorgóorlu jéem a def ay pexe ba yegg ci loolu mbokk julit gis nañu ne bokk na lu bari loo xam ne nii lu la mën a yombalal nga jege sa borom ca moo ne day nekkul lu jafe nga la waay saxal góor góorlu ci jàng alquran foo mën a toll nga la waay saxal di jéem a jege sa borom ci ay naafila amul rukkoo wala sujuud boo sujuud lu dul mi ngi lay jegeel sa borom ca mbokk julit xam leen ne amul lu gën a mën a jegeel jaam bi lu mel ni julli yaa ngi taxaw sa kanamu borom kenn doxul sa digganteeg moom nga naan ko yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bokk na jaam yi ni ngay xamee bëgg gi leen yàlla bëgg nañuy safaanoo ci julli ku la gën a ëppale ci cofeelu gi yàlla moo la gën a bëgg julli na doon farata la na doon naafila la moo la gën a bëgg taxaw téeréb yàlla bi waaye ku la gën a sori yàlla moo la gën a gêné wu ci julli bu demoon imam def juróomi minute ca rakk ca jàkka ja sax day mel ne ku taxaw ci xali sawara su ko defee kon góor góor lu leen di jéem a jege seen borom di rafetal seeni farata waaye di bari la nga xam ne mooy ay nawaafil yi nga xam ne yéen a ngi koy def bari leen di tudd seen borom fu ngeen mën a toll ci seen xol yi di ko tudd ci seen lammiñ yi di ko fàttaliku ci seen jëf yi góorgóorlu leen xam seen tëri borom yi ak melokaanam yi nga xam ne feeñ na ci téeram feeñ na ci sunna góorgóorlu leen di def lu baax jëme ci jaamu yàlla yi waaye itamit ngeen góorgóorlu di toroxlu seen xol di wéet ay wéetaay di xalaat seen digganteeg seen borom yii yépp mbokk julli da ngay gis ne dalay jural sa ngërëmal borom sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne sunu borom yàlla day nee na sama jaam bi day du ma jege mukk lu ma gën a bëgg li ma farataal ci moom waaye gannaaw farata yooyu du deñ di def ay nawaafil te mooy yoo xam ne day topp farata ya ba ma far ko bëgg mooy yàlla boo ko bëggee niñ koy xami suñu borom yàlla ne su ma ko bëggee maay doon la nga xame ne ni mooy bëtam ya muy gisee dootul nangoo nekk di seetaan lu dul lu neex yàlla maay doon noppam yi muy déggee dootul nekk di nangoo toog di déglu lu dul lu neex yàlla maay doon loxoom yi muy jëlee ko joxe dootul nangoo jël lu xaraam wala di def lu xaraam maay doon maay doon ay tànkam ya muy doxee ay dootul nangoo jël ab tànkam di ko jéego fenn foo xam ne nii ngërëmal yàlla ne ko fa mbokk loolee da ngay gis ne boo amee suñu borom yàlla dana woo jibril alayhi salaam mi kilifa malaaka yépp na ko jibril kee di muhammad njaay mee day wala fat sow mee day ca Nigéria wala ca Sénégal wala ca Portugal xamal ne Jibril man di bëgg naa ko nan ko bëgg bu ko defee Jibril wàcc ca malaaka yi ne leen eey malaaka yi borom bi sunu borom nee na bëgg na diw bëgg naa ko bëgg leen ko malaaka yépp ne ñu nit koy bëgg nañ ko su ko defee yàlla wàcc mbëggeel googu ci képp ko baax ci kaw suuf bu la gisee bëgg la loolu mbokk mi ngi noonu képp ko baax bu la gisee bëgg la am na saay saay bu la gisee bañ la ak kàccoor bu la gisee bañ la waaye képp ko baax ku xolam sell bu la xamee bu la xamul bu lay gis rek dina bëgg mbokk li mooy médaille bi gën a rëy bu doomu aadama di am mooy décoration bi gën a rëy bu doomu aadama di am ci kaw suuf su ko defee nga la waaye ñu góorgóorlu ci teete ci suñu bopp jéem a góorgóorlu teete ci suñu njaboot waaye jéem a xeex ak suñu bakkan ci lépp loo xamee ne nii day gis na ni lii day damay soril sama borom daf may soril sama ngërëmal borom ba leen na tax ngay dem di dellu ci loolu loolu moo tax ba nga la waay woote yi day bari na kër kër yi bari na waaye xam leen ne li fi nekkoon di cosaan dara mënu koo gën ba ilaa yumi diin alhamdulillah seen jataay bi ngeen toog jóge seen kër ya ñëw daje ci néegam yàlla bi lii lu leen di jural ngërëmal yàlla la lu leen di jegeel seen borom la te wallahi rabbul kaaba loolu mën naa ko waat amma bari na daje yu bari yoo xam ne nit ñaa ngi koy woote tey alal ju bari ña ngi ko cay def waaye wallahi da ngay gis ne bépp jaamu yàlla bu ñuy def tey ci kaw suuf ci abubakarin sadiq bu dekki waatoon nga naan waaw ñi lu ñuy def omar ibnu xataab bu dekki waatoon nga naan ñi lu ñuy def wallahi ngërëmal yàlla nekkul foofu su ko defee fonk leen li leen yàlla fonkoloon jumaa ji ngeen toog suñu borom dana délégué ay malaaka ci bunt yi képp ku ñëw ñu bind sa turu jumaa ji ngeen toog képp koo xam ne rafetal na ab toogaayam déglu imam comme ni ma gis ngeen def ko ba pare yàlla dana la baal bakkaaru fukki fan jumaa ji ngeen toog toogaay bi ngeen koy toog yowmal qiyaama yàlla dana leen ca woo ngam ca àjjanam yi kawe ya nii ngeen tooge woon ci sàppe yi noonu ngeen fay tooge yàlla na yàlla subhanahu wa taala defal ñu loolu mbokk lii mooy dëgg lii mooy sunna fexe leen sax ci dëgg fexe leen sax ci sunna ak lu mbooloo ma néew néew néew moytu leen riirandoo ak daje yum bari bari ak lum leen yéem ngeen moytu ko moytu loo ko suñu njaboot yàlla subhanahu wa taala ñu ngi lay ñaan yàlla nag ñu boole sa jaam yi lay wéetal duñ la bokkaale dara yàlla nag ñu boole sa jaam yi tënku sa sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nag ñu boole sa jaam yi nga xam ne dañuy daw lépp loo xam ne bokkul ci sa diine ji allahumma rabbana atina fi dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين